asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziar euh, fii ci nag euh, Yoff euh, ki nga xamante ne nag moom moo di Pawlish Mbaye moo fi amal ngénteem tubaarkaal lu am solo am bi ay jumeaux donc nag li ñu mën a ruusal nag ci nuyoo bi rek mooy biisu ngoon na daal tuddee doom ji. ak ci Ouzin tey la ma waral sa teewaay ci ci bisu Pawlish bi. waaw Pawlish Mbaye Pawlish Mbaye damaa ñor ñëw maamu sekk na ne moo tax ma ñëw. de ku ku ne Ouzin Keita nekk ku ne na Pawlish dama naan sama rakk si aar la sama doom si aar waa sama mag la si jëm du kii moom a ñor waaw. ku nekk ak uh, bis daal moo mën a ñor tubaarikàlla. mais tey jii maanaam tey jàmbala paire nga wóot ndax balaa nga def. Uh, jàmbala moo tax dafa soog a def balaa maa ngi xuus. mais tey baa siif du fi am rek ay siif yooyu rek. ma xam ko maa ngi soog a ñëw soxna <laughs> ayca <laughs> noo def ma yëngal ko comme d'habitude su ma gisanteeg moom dama koy farcé ayca mi ngi ko ayca topp ma ñu dugg biir ndax yaa ngi xool doom ndayam ak doom ndayam mii di jël leen ñoom ñaar ma xool li jël ay ni defee dafa naan mooy wax oui ma papa mooy wax barke Alaaji Fall dama la wa e, e, ga ñu dugg ci biir ayca topp leen ak